jàmmaneex jàmmaneex jàmmaneex ñun moom lañu ñaan alhamdulillahi allazi qad awqada nuurul huda fi qalbi kulli man hada musalliyan wa salliman ala rasulil arabi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi imaanin wa ihsaanin ila yawmi ddin wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokk yi topp seen site muslih tv point com seen mbokkam daara Alioune Cissé moo leen di nuyu te di leen ziyaaro di leen ñaanal yàlla jàmm te di ko sàkk ci yéen di fas yéene dellusiwaat ak yéen ci liggéey bi nga xam ne baaxoon na di ko ànd ak yéen mooy doon jéem a toppante ak yéen téere bi ñu tuddee al axdari fi l ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu mu nekkoon ceeg yéen fa jamono yii yëpp nag di jàngaleen teg yéen ba biñ fiy mujj borom téere bi ngi doon jàngal jëm ci wàllu fay boru julleeg nañ ko war a defeek yu ni mel borom téere bi mu ngi doon jàngal lool tey nag jëmmi julli ah lan mooy charte yi ni mel li ñuy wax suratul wujub ak suratul suratul sixati salaat ak suratul wujub yooyu lañuy ñu bëgg a jàngal tey moom borom téere bi nag amaana suruutu si yi la indi waaye nag am na ala balaa julli di wér il faut mu war nit ki ba pare loolu nag boroom xam-xam yi dañuy wax ne suruutul wujubi ah moom juróom lay doon amaana borom téere bi jàngale ko waaye dinañ ko indi kon bu ñu waxee sart yi nga xam ne mooy tax julli war nit ki juróom la bi ci njëkk mooy al islaamu nit ki balaa julli di ko war day fekk mu nekk jullit ab yéeféer julli waru ko kon julli jullit la war ab yéeféer julli waru ko muy benn bu ñaareel bi albuluuxu maanaam nit ki balaa julli di ko war day fekk mu majeur kon xale julli waru ko waaye bu jullee julli ga dana wér xale julli waragu ko waaye nag bu jullee dana am tiyaaba comme ñépp kon mi ngi noonu moo tax yonent yàlla Muhammad di soññu waay julli ne seen doom yi bu ñu amee juróom bu ngeen di julli di dee leen commencé ci tàggat bu ñu amee fukki at di daw di làqatu ngeen commencé dóor dóor yoo xam ne du nàccal te du gaañ balaa yegg fii majeure amaana yàlla dana dogal mu miin julli nga xam ne boo ko fàttee sax amaana moom moo la koy fàttali ne papa julli jot na waaye xale kon mi ngi noonu moom bu jullee dana wér waaye nag julli waragu ko bu ñetteel bi mooy lan ah duxulul waxtu waxtu wu jotagut kenn mënu koo julli julli jotagut nga sawar na xaaral ma julli déer loolu mënut a nekk julli moom balaa ah, balaa laa war rek day fekk ah, waxtu wa ah, jot waaye bu waxtu wa jotagut loo mën a mën a julli nag boo jullee du wér waaye nag noonu irtifaa dammal xaydi wa nifaas yëkkatiku deratu wasin ak régal bu dee jigéen jigéen lu mën a mën a julli nag bu tollee si jamonoy régal ak jamonoy bu amee doom ba pare deratu wasin googu jamono yoon lu mën a mën a julli moom dafay bàyyi julli moom ba dara ji taqalikoog moom waaye naka noonu tamit alxaqlu xel dof du julli kon nit ki lu mën a mën a julli tamit bu xelam demee julli na ko moo tax nit sax jamono bii nga xam ne dafa xëm sax jamono boobu du ko julli ndax julli moom day aju ci xel ku amatul xel nag boobaa julli wàcc na ko kon juróom yi mooy julli sart yi nga xam ne mooy tax julli war nit ki léegi nag mu borom téere bëgg ñoo jàngal nag yi nga xam ne nag mooy tax nit ki julleem mën a wér boo ma toppee rek borom téere bi dañu ñu ko leeral kon julli juróom yi njëkk yi ma la limal nii daal mooy tax li tax julli war nit ki bu dajee ci yow julli war na la boo ko bàyyee rek da am bàkkaar léegi nag lan mooy tax julli wér borom téere bi moom la ñu bëgg a jàngal tey mu ne fas li ab tàqale la fi suruuti salaati ci sartey julli mu ne suruutu sal wa suruutu salaati sartey julli bi ci njëkk taxaaratul xadasi mooy laab ci am toj mooy nga laab ci toj toj waaye naka noonu wa taxaaratul xabas yi ak laab ci xabas nga laab ci yépp comme ko jàngee woon ca commencement téere ba minal badani tukkee ci yaram wa saw bi ak yére yi ngay sol mu laab sa yaram laab yëre yi ngay sol tim laab wal makaani ak barab bi ngay jullee fi ngay jullee tamit dafa war a laab kon yooyu yépp day tax sa julli wér kon sa yaram dafa war a laab waaye naka noonu yëre yi waaye naka noonu tamit makaan bi ngay jullee dafa war a laab ndax am na makaan yoo xam ne islaam day bañ ñu jullee fa lu mel nii ca kaw kaaba ga ci kaw kaaba ga moo tax jàngkat yi dañuy cax ne nit dina jàppoo ndox mu gën ci ndox yi jullee fi gën ci barab bi te bu jullee julli ko du baax mooy ku jàppoo ndoxum zam-zam bu paree ci kaw kaaba ga julli fa bu jullee julli ko wérut ndax moom jubluwut fenn waaye naka noonu tamit lu mel ni fi ñuy rendee xar yi ah fi nga xam ne deret ji njëkk ko génn noonu mooy fi ñu koy rendee rek foofu dañu aay ku fay jullee waaye naka noonu tamit lu mel ni digg yoon maam digg yoon fii ni ngi jaar seen dàll yi foofu dañuy aaye ku fa jullee wala lu mel ni tamit fii gëlëm yi di góor mooy fii gëlëm yi di tëdd foofu tamit dañuy aaye ku fa uh, jullee yooyu bari yoo xam ne dañuy bañ ku fa jullee kon ñu bokk xam ko waaye bokk na ci sart yi tamit mu ne wa satrul awrati nga suturaal say awra say awra nga suturaal ko yow muy julli waaye nag noonu tamit wa istiqbaalul xibla nga jublu xibla day tax sa julli wér moom jublu xibla nag bu dee ku nekk màkk la moom noo mën a wari noo mën a jubloo kaaba gi rek boobaa moom sa sa kii wér na yow boobaa kaaba gi rek nga jublu moo xam da nga ko taxawee ndeyjoor rek càmm mooy noo ko mën a taxawee daal yow jublu nga kaaba gi rek sa julli wér na bu dee nag ñu dëkkeewut màkk ñoom dañuy fu ñu mën a nekk rek dañuy dem a nattale jéem a dëgmal fa kaaba ga nekk ñoom waaye nag noonu bokk na ci tamit nga bàyyi wax boo xasee bay julli wax dëgg am nga loo wax ba xattaa fi nga ne allahu akbar di kabaaru armal ba fi ngay sëlmalee amut fenn foo ci noppaloo foo toll yaa ngi wax subhaana rabbil azim ak ginnaaw faatiha jeex ñu la jàngal saar ba pare ñu la rokoxal subhaana rabbil azim boo siggee ñu la defal ñaan sujjóot yaag foo ci tam ci julli dañ lay wax loo fenn daal nga ciy xaw a noppi nopp bu gàtt mooy bu dee julli ñetti raaka la wala ñeenti raaka fi nga toogee toogaayu digg bi ba war a jugaat foofu moom dañ lay wax noppil bu wax allahu akbar jugal ba taxaw ba taxaw temm door a wax allahu akbar foofu rek nga ciy xaw a waaye lu dul loolu fépp foo toll ci julli am na loo fa war a wax kon boo xasee bay julli kon am nga loo wax kon waratoo wax leneen wax nag bu dee am na lu ñu ciy maye lenn la lu tuuti mooy wax joo xam ne dafa yéwénal julli ji maanaam imaam dafa juum nga ne ko subhanallah imaam xamul lu ñu koy wax nga ne ko subhanallah imaam xamul lu ñu koy wax ah nga ne ko imaam da ngaa fàttee sujjóot de wala imaam da ngaa fàttee rukon de mu nekk wax ju gàtt dañu xam lu mu bëri bëri fexeel boobu mat juróomi baat waaw mu nekk wax joo xam ne wax ju tënk lay doon te wax joo xam ne dafay defar julli la waaye tamit bu fa nekk di fasaxa di maam ñàkk a mën a wax imaam juum nga ne ko imaam waaw daa mel ni julli gi matu de daa mel ni ndànk di expliqué mel ni koy waxtaan boo ko defee bu sa wax ji bëree sa julli day yàqu kon wax ji da koy tënk fexeel bu mu passé juróomi baat te day nekk wax joo xam ne day defar julli gi mooy imaam mu jamaj xamut fu mu toll nga yéwé na ko nag imaam da ngaa fàtte sujjóot wala da fàtte rokon ak yu ni mel waaye naka noonu tamit wa tarkul afaali kasiir ak bàyyi mouvement yu bëri ay yëngatu yu bëri di julli mel ni ku julliwut jël sa loxo yi di sànni di wala nekk sa sikkiñ bi di fo wala yaa ngi teg kaala gi chaque seconde bu wadd ngay sëgg di faraat ak yu ne mel jëf gi bu bëree dafay yàq sa sa julli bu bëriwul nag mooy bu paas bu mu paase ay ñaar ak yooyu bu ko paasee nag jëm kaw boobaa sa julli dafay yàq kon nit ki tamit buy julli dafa war a dal taxaw benn place bañ faa nekk di sànni loxo wala nekk di foqi baaraam wala nekk fa di ah, sikkiñ ba di foog ak yu ni mel yooyu yëpp nañ ko moytu kon yëngatu yi bu bëree rek kon ah dafay yàq sa julli kon ñu bokk ci bàyyi xel daa am loo tudd loon ci ginnaaw mooy awra lan mooy awra ci góor ak lan mooy awra ci jigéen moom la la bëgg a leer leeralal mu ne wa awratu rajulin awray góor maa na surati mooy la nekk sa diggante jimbax ba wa rukbati ak bëti oom yi bu dee góor la ne nee na ay awraam moom mooy li ko tàmbalee ci diggante bët ah jimbax bi ba ci bët oomam ne na góor daal loolu rek mooy ay awraam moom bu ko nëbbee rek moom bu jullee dana wér donte tamit nag boroom xam-xam yi nee na ku mel borom risaala nee na sid neen sax góor nag muy jullee moom ah si leen waaye ala kullin daal bu jullee moom dana wér bu nëbbee jimbax bi ba ci bët oomam mu ne wal mar atu nag bu dee jigéen la mu ne kulluha léppam moom jigéen awratun awra la maada wajiha ba mu des xar kanam gi wal kafay ni ak ñaari tenq yi mu ne bu dee jigéen nag léppam moom awra la ba mu des xar kanam gi ak ñaari tenq yi moom jigéen bu dee jigéen ne léppam awra la ba mu des tenqam ak xar kanamam ndax ñun tey suñu jigéen yi Sénégal noonu la ñuy jullee dangay gis kuy julli yeel baa ci mbedd ma wala dox ga wala karaw ga yooyu yëpp daf ko war a nëbb kon yooyu yëpp bu ko feeñalee moom jigéen julleem dafay yàqu kon mi ngi noonu ñi bokk ci bàyyi xel kon nit ki biy julli war naa mën a def yitte pour nëbbu ay awraam yépp ba mu des liñ ko may mooy xar kanamam ak ay tenkam kon tànkam yi sax da ko war a nëbbu moom jigéen tànkam yi sax da ko war a kon loolu yépp nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la waaye di julli sa yeel yi nekk ci bitti wala dox gi nekk ci bitti wala yaa ngi julli sa kol gi nga muuroo baaxut kii baa ngi feeñ yooyu yëpp daal ñi bokk ci bàyyi xel te booy julli tamit yow jigéen nga sol bu bul sol yore yi xat waaye naka noonu bu mu yaraax waaye naka noonu tamit ah, bu mu gàtt kon yooyu daal ñi bokk ci bàyyi xel suñu jigéen yi Sénégal nag moom mu ngi noonu rek day julli nga yaakaar ne kii moom mi ngi sol lu sër ah, bu gàtt wala dox gaa ngay feeñ ak yi ni daal kon ñu bokk ci bàyyi yàlla na ko baax la mën naa nangul ñëpp waaye daal ñu def yitte di jéem a nëbbu cër moo tax yenn jigéen ñi faral li ba demee da ngay fekk ñu am ay yére julleekaay yére yoo xam ne bu julli jotee moom la ñuy sol julli bu ñu paree lemaat denc ngir lan sàmmanteeg seen i cër yi nëbboo gi ni mel kon mi ngi noonu kon xam naa kon ñu ngi ñëw euh, doyloo loolu tey di jaajëfal oustaz Saïd mi nekkoon ak ñun ci technique bi waaye nekk noonu di jaajëfal mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci site bi te di wéy di leen soññi ngeen wéy di abonné ci site bi di dabu ñuy waxtaan mu ngi noonu kon xam naa ñu ngi taxaw foofu di wax ne lépp lu ci leer yàlla la lépp lu ci lëndam gàtt xam-xam ak ñàkk fasaxa la in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jammane jammane jammane ñun moom lañu ñaan